ci Sadio Mané. Mhm. xam nga on est fier. Mhm. Sénégal gi yëpp àdduna bi yëpp fier ci Sadio Mané mu doonub sénégalais mhm. waaye loo ko yéene du ballon d'or loo xam ne dama koo seet ba gis ko dama ko koo yéene te am ci yàlla yaakaar ni ku liggéey weer bu dee di nga fayeeku foofu laa teg ne incha allah am nañ yaakaar ci yàlla ne Sadio Mané dina am ballon door parce que mérité na ko damay xool saajo maane ci El Hadj Diouf ba mu cay toll la mu daan def loolu Sadio maane di def tànqaarluwul benn yoon la lañ doon kii rek ki bokkaande temps booy mbëkk bal teg dënn dóor mu dugg bokkaande waaye teg xaw ma <laughs> xaw ma dama ko waxaate waa teg eh, xaw ma mbëkk bal teg dënn dóor mu dugg eh, Sadio maane waaw kon macha allah yal nag ko yàlla jox. yàlla nag ko yàlla jox ballon d'or nekkul lu ma seet la. Mm-hmm. déedéet nekkul lu ma tëdd yàlla woon ma Sadio Mané la déedéet dama am ci yàlla yaakaar te xam ne Sadio Mané liggéey na. Mm-hmm. meilleur buteur. Mm-hmm. macha allah mun na doon meilleur buteur parce que li mu dugal bari na. ah la mu liggéey daal bari na yàlla na ko yàlla fayee ballon d'or. te may tàllal loxo àdduna bi yëpp ñaanoo ko mu am ballon door ndax ah, Sénégal lu mu am rek. maanaam man la ko amal. pour man kenn ku ne bu jàppee sa bopp ne Sénégal bu gañee man la gañeel en tant que sénégalais wala sénégalaise loolu yàlla day daal di wax waaw ñun ñëpp mun ñu tàllandoo su yàlla sunu loxo pour Sadio maane am ballon d'or euh, ñu ñuy tàll yàlla sunu loxo yàlla di ko neenal yàlla bu yàlla neenal Sadio maane yàlla na ko yàlla may ballon door ci barke yeneen bi man da ba doon séentu am coupe waa équipe nationale ñu ki sama kër gi seet si ma mm-hmm. hee maa ngi nag ba ñawlu sama version rouge ba teg ko billaahi vert rouge baa ngi nii sax dama ñëw lu verte euh, sër bi verte garam bi jaune def étoile ci garam bi rouge musóor gi mu ngi fii doon yaakaar ne dinaa am kub rek ba mën a taxaw caafonteeg ñooñu xaar leen ñu ñëw sama kër waaye nag maa leen xaar beneen yoon incha allahu rabbi waaw di leen ziar rek di baal ñëpp àq di balu ñëpp àq di tàllal ñëpp loxo pour ñu ñaan Sénégal yàlla def ci jëf fi jàmm yàlla wàcc xéewal Sénégal ñu bañ a jëggaani ci benn réew képp ku fi liggéey di dimbale askan wi yàlla may la loo liggéey dimbale la ndax am na ñoo xam ne seetaan ñu Macky Sall xaar ñu Macky Sall di defar réew mi ndax maanaam am na ñoo xam ne dañoo am seeni entreprise képp ko ci am entreprise ubbi ko di jël ay doomu aadama di leen fay yal na la yàlla taxawul boppam yokk lay xéewal ba nga mën di fay ñooñu ñu ngi jàpp ci réew mi ñooñu tax nañu xale yi gémmatuñu génn dem dugg ci gaal yi ñi nga xam ne mënoon nañu am seen xaalis denc ko waaye maanaam ubbi nañu seeni entreprise di jël ay nit di leen fay ñoom it ñu ngi jàpp ci ci waaru Sénégal yal na yàlla bette xéewal ah lislaam ji yal na yàlla dugal ko ci xolu nit ñi bu baax a baax ñëpp juboo ñëpp doon benn bëgguma ñuy jaxase ay nit ak nit loolu baaxul sooy wax danga naan yàlla nee na yonent yàlla Muhammad nee na buy julli waxel nàngam sooy woor defal nàngam loolu dafa baax dafa am solo dafa am solo yal nañu yàlla xiir ci lu baax ñuy wax lu baax doon ay royukaay maanaam ba ñëpp di def lu baax ci barke Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dégg nañ bu baax a baax